Moussa nag moom baax na sëriñ bi. nga naa fi waaw naka mu. Kowe. naka waar kay. waaw baax na sëriñ. <laughs> waaye Moussa xaw baax na kon yow parier bi gagné na nii. pourtant moom Moussa dañoo parier ku ne deux cent mille deux cent. ko am ah. dama ko woon a ko dama ko woon a ko a mbala maa ngi seen stade. grand yow bu la ay ngay def. ah kon dama nga dem stade dem naa stade. waaw. Ah. Hmm. Ah. booy bii match dem naa stade. Hmm. mais yow. ASM buy joué moom lu muy def. nga naan mos. saa hmm. waroon def. bàyyi dem stade. dindi hmm. télé yu bees yi. télé yu bees. waaw waaw télé yu eh, bees eh, yu demee daa ma xamal la ah, ñaan léegi eh, ah am nañ problème bi sax du loolu mais gis nga télé yi léegi match yi duñ ko jàpp de. nawetaan bi moom boole wu mais yow match nawetaan nga may wax dama déglu loolu lép lépp lépp lay wane nga seetaan football zone bi neexu la nga ubbi ko mbéj ko ubbaat sa télé. mais yow kii lan lay wax nii yow. non lu bees tàkk la. loolu dafa la kii kii kay may ko mun naan. yow eh dafa ndànk dafa ndànk. mais booy bi nit la. Eh, hmm? ban télé la ñuy. foofu nga fay ko la nit la gis nga. kii nga xam nga bu soog a lay fay kii daa tàng. ah ban télé la. mais nag grand bi non su ma la xoolee rek sama xel day fu muy dem quoi. Ah.